nan nga gisee kombaa boobu. waaw combat bu neex la combat bu neex la ci diggante ñaar ñi nga xamante ne du ñu ay ragal mais mooy li may faral di wax rek excès de confiance bi ci Tapha bu mu ko yóbbaale ba làmb ja lépp loo gis dal daf cee baax dal daf cee baax nit ki mën nga ko mën sax mais bu ko wan da nga excès de confiance. nit bu waxee rek boo nekk ko jàq xool da ngay xam ne kii am na ko excès de confiance wala amu ko ak loo pare pare pare pare ba mu wër na pare nga bésu làmb ja dalal lépp loo war a def ko ci biir géew gi mais bul ko wanee ba ñëpp gis ko mhm. waaw. combat bu neex lay doon de. combat bu neex lay doon. waaw parce que boo xoolee istulu booy ñaa da nga xam ne sama digganteeg moom ak bii nii wuute na am na différence parce que sama diggante moom dafa yokkoon poids bii mu ñëw wàññi kon donc am na lu muy wër. yokkoon poids bi. lan moo taxoon yow yow surtout yow yow tey booy ñaa poids bi bëri ak lan moo taxoon pour yow. waaw parce que dañ naan ko la déggee dafa yokk poids xam nga dafa diis il faut nga yokk poids te loolu loolu loolu loolu du kii loolu du istilu booy ñaa boo ñaa bàyyi ko ak bàyyi ko ak mu ligg mu non boo seetlu moo loolu moo tax mu gaaw a sonn waaw ah, parce que liggéey liggéey na ko mais liggéeyu comme liggéey bu tax ñuy wax liggéey waaw. Ah, nga man li ma yor maa ko moom suba ji ñëwee tax mën naa ci bëre yow fi ba suba tul ma sonn mais moom la mu yoroon moomu ko woon moo tax mu gaawoon sonn noonu. waaw ah, am na loo xam da koy maîtriser danga nga ciy liggéey liggéey yi pour ñu tax ñuy wax mais daal leen laa ko ah man li ma gis moom euh, bu bu mu nangoo jàpp ngémbam daal. bu mu jàpp ngémbam. waaw nangu tafaatin jàpp ngémbam. def waaw kenn ku ne da am point fort ak point faible. Euh, kenn ku ne da am point fort ak point faible. tafaatin tamit na mooy remise bu remise bu booy ñaa c'est-à-dire. remise bu booy ñaa. dafa nekk nga xamante ne buy xeex ak yow sa loxo bu nee bërët ci lay gën a gaaw a loxoom ko sa loxo buy ñëw bu loxo naa bu sa loxo di ñëw loxoom day ñëw day jiwul yow léegi boo amul maîtrise u réflexe def retrait de corps mm-hmm. coup bi mën nala la dal. non non waxuma question de force am na force de frappe mais maanaam maîtrise u euh, sa loxo buy dem. loxoom day ñëw il faut nga am maîtrise yu am retrait de boo ko amul rek ku mën a la dal tey poids bi mu yor ñëpp ne dafa wàññi poids est-ce que Lac de na poids bi mu yor moom mooy poids Boy Niang. am ah, na ni laa ko xamee woon de nii laa ko xamee woon ah, te li ma gis nii rapidité la ci bëgg a liggéey ci combat bi. rapidité bi mu yor ah, moom dafa xaw a wàññi moom waaw ah, man loolu laa gis de wala dafa yokk. a ah, déedéet man dafa dem ma gis dafa yokk de. dafa yokk ah. que poids boobu ku nekk ak la rek. parce que dafa gis nañ ko muy entraîné maa ngi koy gis ci entraîné bi. mais lii mu yor ni moom peut-être moom arrangé na ko. kon ñoom ñaar état physique kan moo ci gën a baaxle état physique. ñoom ñaar ñëpp a baaxle. waaw ku nekk ak la nga la la arrangé. Boy Niang am na lu ko arrangé Tapha Tine am na lu ko arrangé. ñoom ñaar ñu gis ne dañoo mën xeex parce que booy ñaar xeexam sax waneegu ko suñ ne waneegu ko ndax dañ daan dégg papaam mu naan bu daan jàngi école bu ñëwee da koy takkali gant mu dem xeex ñu dégg tamit Mouhamed Ali Ndiaye ñu koy nuyuwaale bu baax a baax mu ne Boy Niang dafa mën a xeex te ba xeex bi ñu gisaguñ ko Tapha Tine mu nekk koo xamante ni euh, dafa mën a xeex moom am na mbër yu bari yoo xam te ne xeex moo ko ci génne te ñoom ñaar tey Lac de yow nga nekk puncheur kan moo ci gën a euh, kii kan moo ci waa kan moo ci dàq xeex ñoom ñaar ndax yow puncheur nga ñëpp xam nañ ko ñoom it dañoo mën a xeex. ñoom ñaar ñëpp mën a xeex. mais am na koo xam te moom moo ci gën a. mais duma ko wax fii. ok si day am lu ko neex mënoon naa taxaw wax ko ne ñoom ñaar am na ko ci gën a. jaar yoon xeex. mais am na si am na. waaw am na kenn koo xamante ne am na défaut boo xamante ne bu ko ci moromam xamee rek musiba la waaw mais am na ku ci dàq xeex ci ñoom ñaar waaw. ñoom ñaar ba tey ko combat mën naa jeexe ci bëre wala mën naa jeexe ci kaaw comme ko ay xeexkat lañ. mën naa jeexe sax ci kataap yi. naa jeexee ci kàttan. waaw. neex lool. parce que damaa gis loolu rek. vision non pas vision damaa gis loolu. naa gis loolu mën naa jeexee sax ci kàttan bi. kàttan jeexee na. parfois nga gis mbër dañ koy tëral. parfois mbër mën nga gis xeex am tak tak kenn ki dugg génnaat. Hmm. kooku def kàttan bi. non seetu ma sax de. Ah. damaa wax sama vision li ma gis rek laa wax. Ah. Ah. ñoom ñaar defet kan la ci euh, kan la ci gën a maar détail yi ñoom ñaar muy tafaatil muy booy ñaar. kan la ci defet koo xam te ne moom wax dëgg yàlla kii moom defet ak kut ku kut lu war a xew. victoire moo ko arrangé. booy ñaar. victoire moo ko arrangé. moo laaj ma lu tax. lan moo question. boo xoolee booy ñaar. ma digganteeg moom ci stade bi fii amu fa ndam neel benn Ama Balde Tapha Tine Balde daan na kon donc kut ko kut Boy Niang waru am défaite ci stade bi. kon dafa war a daan pour mën a kut kut laa de. Mhm. dafa war daan sinon bés bu daanul combat bii nii. ni muy wàccaatee sax dina xaw a garaaw ci moom. mais am na combat ak wa Gaye. lu koy waat moom ci ci carrière am ci kii am quoi ci euh, parcours am waaw day xaw a day xaw a doy waar quoi. booy kii moo ko daan Ama tamit moom tamit defet interdit la. non non non moom ci victoire la mujjee ak Yékini Junior. ok ci victoire la mujjee. Mm-hmm. mais ki nga xamante ne victoire moo ko arrangé ci biir Pikine bi. taxul laaj dal de la déggee deux. ndax wane li tax Lac de Guiers 2 di ko jël. kon dama dafa daan paka la bëri ak ndaanaan ay ndaanaan. na ak ay ndaanaan. Ah. mais bëgguma ci commentaire commentaire bëri sama diggante ak moom. ndaanaan bokk. non bokkuñu dara. Ah. nit ku baax la te jantal jantal gentleman la. waaw ba tey mais daal la da ngeen doon neex na de. mais bés boo lekkee avance am di ko mais moom nit ku baax la daal vraiment. sawaroo ci de. sawar ma ci kan. sawaroo ci Forza. ba barki yonent bi balaa nga doon comprendre li ma la wax maa fii. Forza dafa doon bëri rek ba toq ba yekk ci kaw. pourtant yegg de. comment ko fa yegga. daan na paka la. c'est que moom jeune homme bi moo xaw a tardé tuuti. jeune homme bi. Ah, baax na yàlla na ko yàlla wéral ak jàmm. indi non na instant bi moo tax mu ñëwaat hmm. tey ku la indiloon avance xam nga bëri ak moom. man ngay waxal de nga ne wér na. wér kay. Forza wér nga yow. <laughs> yow nga nga noppee Forza la nga bëri. rek. Forza wér na kay. Eh, wér na ah, na waar de wér na. bàyyi Forza bi ngay. Eh, Forza nga yow. ku la indil nga jël ko. Forza wér nga yow. ku la indil nga jël ko. Forza wér nga. ku la indi Forza avance Forza. Hmm, non du ma moom nag vraiment nag pour la moment. pour moom pour léegi. non non non yow mënu ma mënu ma mënu kaa ñu bëri par may wër du dem bëri ak ay rakam nañu waxante dëgg am na loo xam ne ñu xool logique ñu def ko waaw. na demaat rek yoon bu jërul buuxante yoon bi jërul buuxante bu ñu buuxantee rek maanaam day day day ma xam nga. dafa nekk maanaam nan laa la ko mën a expliquer par exemple tey koo xamante ne da ngay soox pour dem ci kaw buñ la tëbalee état bi rek bés boobu noonu doo ko àttan il faut nga bàyyi bés bi nga xamante ne tey soox nga ba yegg ci kaw ba ñu wën kii yegg na nga ñëw ñu bëri. Forza yegg na kay da nga naan kay yaa deful choix. ba ñu ba ñu mën a yegg na de ba ñu mën a yegg na de ndaanaan la waaye na góorgóorlu rek na góorgóorlu yàlla baax na am benn problème bañu la ma ko dara nag ndaanaan la champion la maa koy béggee bu a baax. Tidiane Faye Alioune Seye Junior. ah cëm. ko paree professeur. Ah, le professeur Lansar. maa ngi koy nuyu maa koy nuyu baax a baax di ñaanal sama rakk ji papa ja Alioune Seye maa ngi koy ñaanal baax a baax yal na ko yàlla may ndam ci barki Seydina Mohamed yal na ko yàlla may ndam ci barki Serigne Babacar si mu ndax nekk na rakk ju déggal. rakk ju rakk ju ma nag fu ñu gisante ne ñuy tooñante waaye démb maa moom yombul maa ngi moom démb. yombul waaw dañoo ndóol nag mais moom ma dàq nag waaw moom ma dàq jamono ji moom damaa xaw a ñaaw. moom mu daax waaw. combat euh, ñu dégg ni yéen ñaar yéen ci liggéey moom état de forme ndax dañuy dégg ñu naan Tidiane Faye ku amul doole doo ko daan yow nan nga gisee état de forme euh, boole Boy Seye junior ah li ma gis di dalagum na sama xel parce que démb maa ngi moom roofoo nañ roofoo nañu roofatiwaat roofatiwaat roofatiwaat te am naa li ma gis ci moom mais am na loo xam ne jarul woon toog di wax sax mais xam naa daal mu ngi liggéey te bés bi ñor na ko waaw di ko ci ñaanal ndam lu sedd guy ndam loo xamante ne du koy indil benn gàllankoor ci carrière am. Mhm. buñ jógee foofu dañuy ñëw ci espoir yi ndax man moom duma dalal ndaanaan te duñu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy ci espoir yi. Mhm. duma lem duma lim. parce que am na ay booy yoo xamante ni dama laa laajoon nga si ñoom te instant bi ñi ngi dégg daali duma tudd ay tur ndax boobu suma juumul maa ngi wasaare lamb ñu waxtaan ci loolu ñu bari na ndax tax loolu ñoo ñu gisee ñu nekk ay champion nan nga gisee instant bi espoir yi bëri espoir yu ndaw yi di jug di bëri di daan tey la de guerre nan gisee ñooñu waa xam nga euh, su may cité ay mbër rek dina am dañ ciy gis seen bopp waaw mais du ma cité tour nag mais am na espoir yoo xamante ne maa leen di gis te ñu ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi suñu biir écurie parce que bu ma waxee sama écurie day mel ni damay far de trop. parce que waaw. te waaw Quench moom mu ngi ñëw. mu ngi ñëw naan la. taalibe Cheikh boobu man xam nga boo nekkee taalibe Cheikh taalibe sëñ surtout taalibe sëñ Babacar dafa am noo may def. waa Koyante moom mu ngi ñëw moom mu ngi ñëw de lu leer laa la wax waaw. mu ngi ñëw bërëm bi paase euh, nii. waaw hmm. ah, pour bërëm mënam feeñ na pour ba bërëm mënu feeñ foofu parce que dañ ko tëj. waaw waa ji lu mu liggéey waa ji yàq. lu mu liggéey waa ji yàq waaw ah, moo tax bërëm du mën a feeñ foofu waaw hmm. ah. non mi ngi ñëw nag hmm. mu ngi ñëw waaw. Ada Fass noo gisee. waaw Ada Fass tamit ndaanaan la waaw ah, moom ndaanaan la euh, maa ngi koy nuyu en passage Ada Fass maa ngi lay béggee waaw di ko encouragé tamit di ko mu gën a góorgóorlu parce que am na ñoo xam bu ñu toppee sa ginnaaw rek euh, da ngay gën a góorgóorlu bañ leen décevoir ci dara yàlla na ko yàlla dooleel yàlla jàppale ko yàlla yokk barki Seydina Mohamed. Euh, di ñaanal kii nga xam ne suñu doom la suñu rakk la muy Thiat Daouda Fall euh, rakk la rakk boo xamante ne euh, defe naa ne aw maag moom accès nii à cent pour cent mais di nga xam boo ko xoolee da ngay xam ne ni kii li muy pratiquer da ko bëgg da ko bëgg ñu ngi ko ci ñaanal yàlla mu gën a góorgóorlu nag ah làmb ji bi mu jóge nii bu mu ko tax a découragé na jugaat rek xale la mu ngi ci yoonam. mu gën a góorgóorluwaat xam na ne làmb daal dina ko may dara ci kanam. bu ko gëmee. combat bi lan ah, excès de confiance. parce que boo xoolee li muy kaw góor da koy yegg fu sori. mu génn ci. maa di am excès de confiance de trop. waaw. waaw looloo ko euh, ñàkkloo combat bi. ci li ma gis daal. parce que nit doo nangu mu yegg la fenn. bu la yeggee fenn. bañal mu yeggaat la foofu noonu même boo ko mënee même foofu noonu nga xam ne yegg nañ fa même boo mënee foofu bul nangu ñu yeggaat la fa waaw mais bu ba yegg la fa nga xam ne mënoo si dara nag nga soog a indi li nga mën waaw mais ñu ngi koy encouragé bu baax baax di ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko euh, di wax euh, ñoom les deux gars yi ñoom ñëpp ñu jàppale seen rakk jooju ak man ak mbëru géej waay yëpp ñu ko jàppale. parce que champion la daal mu ngi ñëw. waaw di ñaanal ki nga xamante ne euh, sama rak euh, am na mbëri nekk écurie ba am combat comme lu mel ni Macha Macha ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla jàppale. waaw sama waay la sama doom la sama yal na ko yàlla may ndam ci barki Seydina Mohamed. mu gën góor góorgóorlu nag ndax écurie euh, Waalo sas na ko ndax kam muy dajeel la. ka muy dajal moom xam na xam na kon doom na gën a góorgóorlu xam ne am na komba ba mu ba nooyal combat bi mu ngi ciy liggéey nag mu ngi ciy liggéey parce que bu fekkoon ne liggéeyul dama naan la kii liggéeyul parce que ñu ngi ànd di liggéey man ak moom maa ngi koy teg lu metti muy ci salle musculation muy ci diin yi yaa ngi dégg muy écrit bi yooyu yëpp mu ngi ci entraîné daal yal na ko yàlla jàppale euh, di ñaanal képp koo xamante ne yaa ngi biir écurie Waalo. yàlla la yàlla jàppale yàlla dooleel la yàlla may la ndam ak euh, ki nga xamante ne mooy booy écurie Waalo yi daal ñoom ñëpp. léegi écurie Waalo dafa amaat beneen puncheur de. waaw amaana beneen puncheur bu bees bu génn puncheur bu yor xeeram rek di sànni. kan la woon puncheur la. ko kangaay rek xeeru xaw xeeru raay la la dugal ci loxo yi. Zos nee na Zos nee na Alioune Seye 2 lan la yor mu ne <laughs> Zos na Alioune Seye 2 daa mel daa am lu mu yor ci loxo bi de. non Alioune Seye 2 loxo yi am tooke nag loolooy coow li mu fu mu teg loxoom bu ko teggee nga ne diirit lu xew. làmbam ndax danga nga doon kaas dañ ko jox combat noo gisee làmbam. waaw alhamdulilah macha allah ah. mu ngi ci kawam euh, di ko ñaanal mu amaat yeneen combat. yan booy saf comme kan kan. booy yi ñu koy nañ ma dimbali ngir yàlla mu ko fi kenn joxante ay booy. nañ ko xool ci kaw. moom ñan waaye yow Alioune Seye war a bëri ci kaw. comme ñan bi combat bi passé ne bu yàquloon moom pourtant ku daan mën na ko. bi passé mooy si waaw mhm. si. ku ci daanoon mën na ko jël. Mhm. combat la. kon booy daal doyal nga ci. non non baax na nañu dimbali ngir yàlla ñu bàyyi ko mu yéeg ci kaw. Eh. parce que jot na Alioune Seye li mu fi def. dama dégg ñu ne Alioune Seye Modou Anta combat Alizé de Modou Anta non Alizé de daal man daal jii ma gis nii. foofu moom a dàqal. comme ñoom seen combat bi man damaa dëñ ko ba ba mënuma gis verdi bi fu mu féete léegi lañ jël Alioune Seye jox kenn foofu ci gars yi ah wala Alioune Seye 2 Yékini Junior mu jógee États-Unis na ñëw. waaw làmb ju neex la. te lu wér. bu neex la. bu neex la de. waaw Yékini Junior am te cinquante millions lay laaj ci ki nga xam moom mooy Diène Kaïré ah, am na ci droit am na ci plein droit. mën naa bu kon mu ngi mu wàññi. waaw non xam nga mënuma ko wax mu wàññi wala mu ñàkk wàññi. nit ku nekk yaa xool sa choix bopp. moom ci boppam bu xoolee dina xam ne na jaral na ko jarul ko rek.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 ak Boy Niang numéro 2 le Thiapathioli ñu toftal ci benn combat spécial Alioune Seye Junior mooy bëre ak Tidiane fay le professeur de l'Ansar